Bounama Sow je suis le coordonnateur national du de la grande coalition Natangué Askan Wi donc il était question pour nous de rencontrer le ministre de l'Intérieur pour déterminer de, le montant euh, de la question pour ces élections législatives. Nous nous sommes effectivement réjouis de, de cette rencontre. Euh, nous l'avons félicité, lui et ses services. Nous nous en sommes réjouis comme tous les participants d'ailleurs. mais nous lui avons également fait part de notre préoccupation de voir euh, euh, le nombre de, de signatures imposées euh, par les, le parrainage, que ce nombre soit considérablement revu à la baisse. Nous sommes d'avis que le filtrage est très nécessaire euh, pour, euh, une, pour la réussite même de ces élections, mais nous avons jugé excessif le nombre de signatures que ce parrainage demande. Euh, mais dans l'ensemble, nous sommes d'accord pour le maintien de la de la, du montant de la coalition des municipales. Donc, à savoir euh, la somme de 15 millions. Par contre, d'autres positions se sont dégagées dans la salle. Maintenant, le dernier mot revient au président de la République et au ministre de l'Intérieur. Voilà, kon dañu ñëwoon rek tey pour euh, rafetlu daje bi d'abord ak ministre de l'Intérieur Euh, nga xam ne daf ñu woo woon pour waxtaan ak ñun ci euh, ñaata la xaalis bi nga xam ne moom la ñu war a joxe pour mën a bokk ci élection euh, ndawu pencu réew mi wax nañ ko nag suñu xalaat bi nga xam ne bëgg nañ bés buy jël décision bi mu xalaataale ko mooy jàpp nañu que ne que signature yi dafa bare pour parrainage bi donc buñ ñu ko munee wàññil mu wàññi ko bu baax a baax te tamit pour que ça n'aille pas dans tous les sens parce que tam élection dañ koy organiser mu jaar yoon pour ñu bañ a am mille candidatures vraiment loo xam ne euh, kenn du ko mën a organiser wax nañ ko ne ko montant bi ñun ci suñu coalition nañ ñu ko defal quinze millions. am na nag yeneen position yi fi jib ci yeneen montant waaye xam nga yu mel ni xalaat bu mujj bi euh, ci moom lay mujj ak président de la république voilà. Mm. Bounama Sow coalition euh, la grande coalition Natangué Askan Wi